parce que depuis le 12 septembre 2022 ñëpp xam nañu ne dañu doon installé li ñuy wax bureau assemblée nationale fal président bi ak ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom ci liggéey bi ñu askan bi nekk depuis bés boobu ci lañuy ñuy soog a xam ne soxna Aminata Touré dafa bëggoon nekk président assemblée nationale parce que ñun na bi ñuy waajal yëf yi ñun ñëpp député yi dañu dem ci séminaire waxtaan xool règlement intérieur xool constitution def formation député yëpp ñëw toog ci ñun ñu ne ñun ku parti bi tànn bu soobee yàlla kooku la ñuy voté kenn xamul woon kan mooy candidat ak kan moo nekkul candidat kenn déclaré woon candidature bi ñu jógee foofu dañuy dem ci 12 septembre ci élection yi yàlla def bi ñuy waxtaanee bu juboo ñun ñëpp ñu jox carte blanche président parti bi y compris tous les partis politiques membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu jox carte blanche président parti bi ak président coalition Benno Bokk Yaakaar ne ko koo digal ne kii moom la ñu war a présenter comme candidat ci présidence assemblée nationale kooku la ñuy ñun ñëpp ñu bind engagement écrit signé ko ne d'accord nañu ci loolu malheureusement bi yëf yi tombewul ci moom te la ñuy soog a commencé dëgg-dëgg di gis jikko bi nga xam ne moom la ñu yaakaarul woon ci moom. ci la commencé jël ay bagaasam ci la commencé jël ay matuwaayam ci la commencé génn parti ci loolu mooy rappeler le 9 sept le 9 le 9 octobre 2022 ci la bind lettre président assemblée nationale ne ko bés ni ko tey génn naa groupe parlementaire Benno ko Yaakaar ñu ne fa lay yem ngeen gis yéen ñëpp teg ci seen bët xam ne wax dëgg yàlla bu yàlla rek dëgg la bëgg ne kii posé acte yi muy posé waaye war nañu xam ne kii bokkatul affaire ci lépp nag initiative yëpp yi opposition di di jël boo ko xoolee di ci gis loxo léeg-léeg sax dafay ànd ak waa opposition di déposer ay recours def ay manifestation def yu bare bare bari te au contraire parti bi kenn gisatu ko ci kenn déggatu ko ci Issa Sall député la woon bu pur moom sax ñu ko waxee gis ngeen mu génn ci presse naan musul démissionné pur waroon mën a jël mandat mais pur dañoo bind assemblée nationale daan kii kat constaté nañ ci créé parti beneen ba mu créé ak yi mu def démissionné na ci parti yàlla def na jamono jooju maa nekkoon vice président man mii maa jot lettre yooyu même lettre ñoom Mamour Cissé yooyu yëpp man maa jot lettre bureau assemblée nationale réunir comme ni ñu ko defee barki dem acté la déchéance de Issa Sall remplacé ko par Cheikh Tidiane donc loolu mooy li fi am amul dara lu fi bees wax dëgg yàlla ñun tooñuñu tooñuwuñu ñun dañoo demoon wuti bi ñu amee sénégalais yu jox ñu dafa mel na nga nekk ci équipe de football équipe comme sportif am jour boo xam ne day jóg chaque jour rek di taal sa caaxi ndax ñun suñu gouvernement bi ci ñu ko bëggoon daaneel ci la bokk woote na ko waa léegi entraîneur bi est-ce que day bàyyi waa ji muy taal ci caaxam bu dégg ba cëg déedéet entraîneur bi da koy génn kay mu dem fenn remplacer ko